ياسر العسيري ما اختاره لي بلا مسيري ولا لعين لسواي مدبرا بما على زهري يدوم دبرا ما توجه المكاره ليا باق حبا بذكره وهو ليا أنا رديت وعني رادي بلا مكاري ولا مريدي رد لي غيري جهدي شيطانا من تيب الممر والأوتانا فر لي خيري جهدي لحين يسوقه لخيرنا المعين هدي هدي من الإله والنبي كل هدي سفد وسفة نبي en 2019 la fi BND ñëwoon ci ziyaar boo xam ni ci wàccaayu màggal la woon kilifa boo nekkoon ci bopp ba xamal xalif bi mbëbëtam pour indi finance islamique fii ci Touba ñu nekkoon ci assistance ba ñoo ngi fàttaliku. waxam boobu mu wax ba mu ko bu mu joxee information boobu daf ne waaye yéen de li ngeen wax yii yëpp lii moom mu si gën a ñor indi finance islamique fii si Touba loolu lu ñor la mu teg si mu na ñaanalee ba pare mu booleel nag kilifa kilifa googu di sëñ Jili Mbàkke sëriñ Jili Mbàkke nag bu ko sëñ bi booleeg ñun ba léegi xam na tànk ba nu réaliser projet bi si anam yu gën a rafet moom membre di charia board la charia board di kuréel boo xam ne si biir arrahma la nekk taxawoo fi pour saytu lépp loo xam ne ànd naag diine lu ko àndalul ñu teg ko fële suñu dossier d'agrément bi moom ak ñoñam ñu nekk ci biir al wasit mooy turu charia board bi taxaw nañ si taxaw bu rafet ba yàlla may nu agrément bi donc kooku ku ñu gën a jërëm la ku gën a remercier la parce que wax dëgg nag bu sëñ bi booleeg moom ba léegi liggéey bu rafet la def suñu suñu à nos côtés di leen dénk Al Rahma microfinance islamique fii si Touba parce que jàpp ni ba Al Rahma réussir mission fii si Touba moom mooy finance islamique dana wasaare ci Sénégal bi yëpp rawatina ci àdduna bi parce que finance islamique dafa méngoo xar-xaru kanamu Touba. Touba dëkk bu sell la Touba yàlla may na ko mu am ñaari mbir ginnaaw bu mu nekkee bu sell yàlla may na am ay citoyens yoo xam ni seen wërsëg am méngoolul ak yi pour les mettre à l'aise parce que quand même fekkee ni banque conventionnelle fi am da ngay am pour jokkoo ñom dans le respect des normes charia yi arrahma bu ñëwee nak da leen yombal mbir moom bu baax a baax am yeneen doomu adam yi nekk ci Touba yo xamne également liggéey rek mo leen tax jog jóg amana sax ñoo ngi xar seen tànk tubéy si lu ñu tuddee bay dunde waaye ku leen dolli moyen financier ñu dem ñooñu nag ak ñee du doon bugg nekk seen diggante ba nga xam ni liggéey bi day jaar yoon ci ñëpp ku nekk gis sa bopp ci biir Arrahma microfinance islamique parce que si noonu rek nu mën a def ba da nga maam Touba participation bu mu ci bëgg a indi si développement am mu am. di sant bu baax directeur général Arrahma Lamine Fall ak collaborateur am yëpp. lii nii dafa am solo ci dëkk bi ndax comme ni ngeen ko waxee. lépp lu méngoog lislaam tey jàppale waa dëkk bi dañoo war a taxaw ci loolu man nag man maa nekk directeur général BNDE def naa fa at ak lu teg tuuti te bi ma ñëwee li ma gën a soxal ci mbir mi mooy position bi ma am nekk euh, actionnaire majoritaire de Arrahma nekk président du conseil d'administration mën a wax ak

am suñu diine ba pare mu mën a méngoog jamono jàng te mën a nekk ay jullit nekk ay murit yu wér jàpp naa ne lii dina ko firndeel suñu amul ay diplôme wala jànguñu woon tey kenn du leen recruter ar rahma sëñ bi itam bi jiite agence bi même chose fii la dëkk moom itam jëluñu ko ndax dafa sant Mbàkke wala dafa dëkk Daaru Xudoos dafa am xam-xam am expérience ñu jël ko jàpp naa ne itam Touba ar rahma daf fi war a am position boo xam ne mën naa am du ko am faneen en tout cas mooy suñu mébét li tax ñu njëkk fi créer agence bi itam loolu la euh, te jàpp naa ne bu ñu liggéeyee war naa mën nekk kon rafet nañ jot loolu nag ci ñi fi teew tey pour doxal mébét boobu ar mën na gaaw a liggéey mën na am résultat rapidement en BNDE bi ko meññ daaw ba mu fay ñëw fekkoon naa fa ay jafe-jafe yu metti parce que dama fekk ay dossier nekk fa yu compliqué am na ñu sax ñuy wax ci euh, réseaux sociaux yooyu temps yi di ma tudd di tudd jafe-jafe yooyu mais nag ma leeral man bi may ñëw dossiers yooyu falaa leen fekk problème yi banque bi amoon dossiers yooyu ñoo ko indi li ma def yépp ci 2023 mooy fexe ba dossier yooyu ñu regle ko mooy bor bi ñu leboon BNDE man mësuma lebal kenn bor ku tudd Dermo wala mu tudd Xaadim Ba ci télé laa nekk ma bëgg mu leer parce que dafa am ñu ciy wax fan yi ba nit ñi di ma envoyé ci réseau sociaux yi naan ma lii nu mu demee changement de régime nag bu amee day am ñoo xam ne dañuy manipuler mais man loolu duma mën laal BNDE dama ko fekk mu nekk ci ay difficultés ñu lijjanti wax ak gouvernement bi ba yenn difficultés yi ñu réglé ko déficitu milliards la waroon a am ay milliards laa wax ay déficit dinañ ci ñëwaat ci fan yi ñu fexe ba mu am bénéfice su quatre cent millions à peu ñu liggéey sur l' année deux mille vingt ba tey commissaire aux yi wax nañ ñi war càmbar banque bi càmbar nañ am nañ bénéfice su neuf milliards presque ci benn at kon. loolu ku liggéeyul du ko man def beneen bi ñu fekk capital bi onze milliards yóbbu ko cinquante deux milliards tey BNDE mooy banque bi ëpp capital ci Sénégal loolu ku xamul liggéey wala mënoo liggéey doo ko def ñu fekk total bilan bi maanaam koom-koomu banque bi nekk trois cent soixante milliards à peu près ñu yóbbu ko cinq cent cinquante cinq milliards def trente sept pour cent de glissement nekkoon 17e place, New la banque, B, 10 premières places. Et, Inch'Allah, Rennes, Ligue def janvier, février, mars, avril, normalement, pour continuer, Banque B, d'une double 5 premières banques du Sénégal. a Ligue 10 ans ou 15 ans. Yalla, Soutral New, nous def en une année. leeral bi dafay am solo parce que am na ñu jaaxle naan ma way xaw ma naka kéwuloo nee na dañoo lebal xaadim ba quatre-vingt-cinq milliards Ablaye Niane moo nekk ca banque ba Macky Sall la ko lebal loolu du dëgg banque ba lebaluma kenn ku tuddu Dermon wala kenn ku tudd xaadim ba problème yi ma fa fekk la régler ko ci kàttanu yàlla ak yonente bi ak sëñ Touba. naa ngi tàmbali samay kàddu ci turu ki ma yónni muy monsieur le maire Abdoulaye Ka bi mu jotee lettre bi mu ne ma lu ma jàppoon naa ko bàyyi ñëw fii teewe ndaje mii teewal ko ndax lu ñuy defal dëkk bi moom moom lañ koy defal rawatina loo xam ne nag ndigal dajaa jóg ñun monsieur le maire ak équipe bi mu àndal yëpp population Touba yëpp ñu ngi daloo bijou bi muy bank bi muy alal rahma rahma microfinance fii ci Touba ndax wax nañ léegi liggéeykat yi fi nekk mais jigéen ñi muy xale yi muy daayira yi muy organisation yi ñépp lépp lu ñuy def ci wut koom mooy bëgg ko dëppale aussi ak li nga xam ne moom la lislaam santaane kon loolu bu ñu amee banque bu mel nii mu ñëw loolu maire bi mooy fas yéene taxaw ci kanam pour que vraiment banque bi ñu mën koo vulgariser ci dëkk bi yépp xam ko. ñu am sant yàlla bu baax ndax le DG Ablaye Niane dafa wax léegi lu am solo Serigne Touba li ko yàlla def ci lislaam aw day feeñ te lu ñu gën a kanam muy gën a feeñ. adduna am aw doxin boo xam ne mu ne si cee mucc te waris na xam mu ci doxe ngir mën a am kaaraange ci biir yoon woowu loolu nag dara mënuñ cee musal lu weesu xam-xam ak topp ndigalu sëriñ loolu taxoon na sa mbokk mu baax ma defoon ko yitte ju rëy ci askan loolu nag tey jural nañu lu bari ñu ci sant ak Serigne Touba ndax Serigne Touba rek la doon liggéey yéen dong it la doon liggéey ndax bëggoon nañ yéene woon lépp loo xam ne yoonu murid daf koy soxla mu am ci ay ak njabootam mu am ci mu am ci mu am ci biir yoon loolu nag tekkuwul ne dañoo war a dëkk Touba képp wala dañu war a dëkk Darou Khoudoss waaye yoonu murid bépp la war a doon te kenn na te lu ne toll na ay jamono doonu murit ci administration sax da koy ñu bu màggal ma sànjot am na ñoo xam dañuy am problème bu mag ndax duñ mën a ñàkk a màggal si duñ ñemee tàggoo seeni kilifa ne leen dañoo bëgg màggali te bu ñu màggalee bu ñëwee am jafe-jafe loolu administration sénégalaise tolloon na foofu kon bu ñu egsee fii dem ba yoonu murit instance de décision bu gën a kawe ci Sénégal boo demee fekk fa doom yoon loolu ndamul Serigne Touba ci que yàlla euh, Abdoulaye Niane ñu ngi lay félicité yi dafa mel ñun ñëpp nga liggéey dafa mel ñëpp nga mu da nga am rafet njott bu baax ndax Serigne Touba dëgg rek la bëgg Serigne Touba ñàkk jaruñu rek la fi bàyyi Serigne Touba sàmmam jub rek la fi la la ñu jàngal nañ jubal nañ jub nañ jubi lii la ñu Serigne Touba jàngal kon nag ku ci ne war ngaa mën a am rafet njott lii nag bu fekkee dafay bànqaas bu jóge ci banque de développement national de développement banque nationale de développement lañ mu mel ne banque askan bi la du banque boo xam ne ay bénéfice di ko yóbbu bu fekkee banqaas boobu la ñu dëppali ko ak charia defe na Tuubaa muy gën kon ñu dëpp ci njàngalem sunu borom waaye di ko liggéey di ko dundalewaat sunu lislaam di ci dundal njaboot gi def na, loolu dara gën koo kawe ndax lépp ci njaboot bi lay demaat banque de développement la wax du banque privée du banque dara banque nationale de développement mu am filière ar rahma boo xam dañ ak lu am solo la kon mu mel pasca dañ jàpp ne parce que finance islamique ci réew trop

ولا لعين لسواي مدبرا بما على زهري يدوم